suñu site di Grand Issa moom nee na pare na jàpp ci li nga xam ne ni moom mooy la 7 juillet bi ak Bingel Jolof ànd ak EDB production fële ca CICES le 7 juillet incha allah.